jullit yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaay bi ci barab bu tedd bi ci bés bu màgg bi ñu ngi fàttali suñu bopp di leen ragal yàlla subhaanahu wa taala yàlla wax ci alquran ne walaqad wassayna alladina min qablikum wa iyaakum an ittaqullah déggoon nañ mboolem niñ mas a jox téere ci kaw suuf ak yéen xeetu yonent bi ñu leen di dégg yéen ñëpp ngeen ragal yàlla. màgg ci xaal bu mel nii kii ku ko bëgg a setal da nga am saabu bu rëy rëy da nga mën a fóot lool ku bëgg ku ko bëgg a def dëgg dëgg jullit defar ay jikkoom defar ak xolam dëgg dëgg da nga loolu kon nañu yitti walaam di ko jàngal njaboot gi rawatina soxna yi di leen jàngal sax nag bu yére taqee sobee naka lañ koy laabalee ci lislaam ndax ñu bari ci xam mooy fóot mu set. te sobe bu taqee yére dañ ko war a xobbi jiital ci ndox mu laab te mën a laabal ba sobe si dañ ñu gën koo fóote bu ñu ko bëgg a fóotee mu set wala bu ko njëkkee fóote ak saabu buntukaay a laabal julli nga mën koo sol julli borom bi subhanahu sa julli kon nañu yittewoo laab boobu nga xam ne moom it mooy taxaaratul xadas benn sangu janaaba lay doon ñëpp ko war a am lu yomb la jàpp lay doon te jàpp yi ñu bëri ñun dañ koy sàggane léeg-léeg mag moo xam ne boo ko fekkee mu jàpp da ngay ñëwante ci moom fa muy yemale raxas loxo ya wala na muy raxasee tànk ya am na digg yoo xam ne ndox mosu ko laal ñu maanaam doonte dund na juróom-ñett yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu al dafa dajale ay saabam ah. waar leen waar leen yëpp tiit nañ bët yëpp a ngi tuur ay rongañ noppee saxaaba ni ko yaa rasulallah dangaa mel ni ku ñuy tàmm dénk mu ne leen uusikum bi taqwallahi wa sam'i wa taa maa ngi leen di dénk ragal yàlla maa ngi leen di dénk bu ñu leen digalee jëfee leen sami'na wa ta'na bu leen mel ni yahud ya seen yonentu daan jox ndigal bu noppee ñu ne ko sami'na wa asayna dégg nañ li nga wax waaye ñoo lànk jëfewuñ kon jullit li ko ab yonentam dénk mooy ragal yàlla mooy as-sam'u wa taa'a dégg ak topp ndigal loolu tax jàngalekat lislaam yi wootekat yi jëmee ci yàlla mosuñoo dañ di dénk njaboot gi ñu yilif di dénk di fàttali njaboot gi topp ci seen ginnaaw moo xam dénkaane bi làmmiñ la wala dénkaane bind la ñu ubbi woon euh, dénkaane bu am solo boo xam ne Serigne Chouaïbou radiyallahu anhu moo ko bindoon wax ay mbir yu jéggi dayo yu yu bon yu suufee yoo xam xew na ci jamono jamono la doon bindal waaye dafa mel ni suñu jamonoy tey rek ko taxoon a wax ndax yam doon wax ba léegi rek mi ngi tasaaroo lool ci kaw foofu moo tax mu tàmm moo mooy fa muy waxee assalaatu rasu diin fa kama annahu laa xayaata liman laa rasa la fa kadalika laa diina liman laa salaata la nee na julli mooy bopp diine yàlla gi doomu aadama mën naa ñàkk cër bu nekk teewul ma ngay dund am na ku ñàkk tànk di dund am ñu ñàkki loxo di dund am ku ñàkk bët wala nopp cër bu ne nit mën na koo ñàkk di dund waaye bopp diw ñàkk na bopp amul bopp dama ngay dund loolu kenn mësu koo dégg kenn mësu koo gis amul kat ku amul bopp rek mooy dundul nee julli nii la mel ci dina yàlla ku dul julli wala nga sàgganee julli di ko foyee amoo dara dara dara ci diine ni ki nga xamee ne ki amul bopp amul dara dara ci ak dund kon mbokk yi ngir mu téye suñu diine nañu fonk waxtu borom bi subhanahu wa taala nañu yittewoo woo gi ñuy borom bi di woo ci juróomi waxtu yi ñu di ko wuy ji tey waajal wuy ji ba ci laab di ko def ci teewlu di ko def lu ci matal farata yi sunna wartu bi ko lépp loo xam ne mooy wàññi wala mooy yàq ak julli waxoon nañ ñu ngi fàttali sallallahu alayhi wa sallam bu ci amee tontu yu jub yu leer yu wér yu dëgg julli gi yàlla da koy jéggal la ci des lépp waaye bu ci ak manqué amee la ca desaat ak lu boo soxlaa bopp kër góodu mën a laab waaj ba jekk na nga ko bëggee ci lu dul benn jafe-jafe moo tax càggante bu métti la nga gis magam jëmm nekk ci mbedd di tuur ndox wala muy def leneen loo xam ne sobe day génn ci moom rawat na waajub boppam ci ndox moo xam ne ci lay sete te ci dénkaane bi mi ngi fàttali jàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wa koo xam ne fu ko tuur ndox fekk mu def ko mën naa tax ma ngay yàkkamti balaa muy noppi solaat nag séyam di dem sobee di taqoo ak moom mbokk yi loolu day waral bëggalum bàmmeel yonent bi moo tax ba yegg ci ñaari bàmmeel ne ñaari nii ñu ngi leen di buggal metti ci biir suuf te lañ def sax de bàkkaar bu rëy waaye ñu leen di buggal ba mu yàgg mu ne balaa aha def bàkkaar yu kenn gi ab rambaaj la woon yàqkat boo xam ne toxal waxi jàmbur yóbbul diw jaxase yi nit ñi meloo ko noonu rek moo doon liggéeyam ci la ko yàlla meree ba di ko mbugal ci biir bàmmeel keneen ki daa sàggaloon ci am tuur ndox du du du du ànd ak dàll ak seey ba la war a génn yépp génn mu setal la mu war a setal lépp da ko daan def ci yàkkamti di dem di yóbbaale sobe looloo ko yóbbee mbugalum bàmmeel moo tax ci dénkaane bi Serigne Souhaïbou radiyallahu anhu di wax ne mbugalum bàmmeel ñett koy waral benn bi mooy rambaaj benn bi mooy jëw benn bi mooy sàggan am pour ndox kon ñu gën a fonk laab boobu nga xam ne moom la borom xam-xam yi di tuddee tahaaratul xabas di laabal suñuy yére waaye di laabal suñuy yaram waaye di laabal suñuy barab rawatina suñuy dëkkuwaay suñu barab yi julleekaay dénkaane bi gannaaw julli mu ñëw ci lii ànd ak julli di ko jiitu te mooy laab moo tax wa bokk na ci musiba yu màgg yi adamu ictinaai baadihim bi umuuri tahaara ñenn ñi sonnewuñ mbiru laab dañoo sàgg ne laab dañ koo doy laab te laab li fee defoo ko même bu dee yaa ngi julli yaa ngi julli wul yéen moo tax dëgg-dëgg Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ba muy jàngale ci tasawur saxaar ak shubaan te jawharu nafiis bunt yo muy jàngale ci ponk lislaam yi day jàngale laab jël àtteeb julli jox ko àtteeb laab ki lànk ba ñu julli nañ koy àttee ni la àttee ki nangoo julli te nangu war a laab laab nag mbokk yi borom xam-xam yëpp dañ koy jàngale ne ñaari xaaj la te dëgg-dëgg laab ñaari xaaj la xaqiqatan jaam bi dafa war a laabal ak xolom diggante ma borom subhaanahu bañ a dara lu aay ci xolam jëm ci benn jaam ci jaamu yàlla yi waaye shariatan laab ñëw doon ñaari xaaj mooy li ngeen ko xamee tahaaratul xadas ak tahaaratul mooy jëmmi sobe sëriñ baa ngay wax ci dénkaane bi ñu bari dañoo sàgg ne laab di takkook sobe ci seen yaram di takkook sobe ci seen i di takkook sobe ci seen i te jullit bi war a doon ko set war a doon ku fonk aw yaramam fu ko sobee laalee na taxaw ci mu laab gaaw naka noonu ay yëreem naka noonu ay barabam ndax li fekk mu ngi julli di ànd ak suñuy barab rawat suñuy dëkkuwaay suñu barab yi jullikaay beneen laab bi muy tahaaratul xadas mooy balaa julli te amuñu ngànt nañ jàpp bés bu ñu sangu janaaba waree nañ sangu mbokk yi ñu bëri sàgg nee nañ lii rawat na soxna yi yàlla xam na ne réew mi léeg-léeg nit génn àdduna ñu door a jàngal ay soxnaam naka la ñuy jàppee nga xam ne soxna yi bañ dalee di sëy ba tey seen borom kër wuy ji boromam ñu ne dañoo war a jàpp xedda ña nga am métit ña ngay jooy euh, faw ñuy julli di jaamu yàlla ndax taw bi la nekk foofu lañ door a jàngalee naka la jàppee lii musiba mënu ko gën a rëy ndax ku mënta jàpp dana mën a sangu tontu yi ñëpp xam mooy déedéet waaw xoolal jigéen joo xam ne may nañ ko borom kër mu jaxasoo ak moom ànd ak sobe muy janaaba sobe soo xam ne li jàkk bi baax baax li muy màgg màgg nga xam ne julli rek fa war a dugg lislaam ne na ko bul dugg jàkk ji li fekk laa ko li julli di màgg màgg bul julli li fekk laa ko alquran bi li muy rëy rëy bul laal alquran li fekk laa ko soxla si kenn jàngul ko sangu janaaba kenn jàngul ko jàppul te même bu mënoon a jàppati mën sangu moom ma li muy doon doon jullit lislaam xaraamal na ci moom laa alxuraan xaraamal na ci moom di ko jàng xaraamal na ci moom même bu demoon màkk di wër kaaba ga euh, mu takkoog sobe soosu di dund ak moom ay fan weer ay at naa dem ba tollu diggante ànd ak sobeem soosu dem ba am gan am doom di ko nàmpal ànd ak sobeem soosu te dund na juróom-ñett fukki at mësta julli julli bu baax ndax mësta laab laab bu mag mbokk yi lii musiba la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci xadis waylun lil ahqaari min an naar xurum bugal ci biir safara ñeel na képp kuy jàpp sàggan ba la nga war a raxas raxasoo ko kon ñu gën a yittewoo laat nii ko sëriñ bi dénkaane gën cee yar njaboot gi yee leen ci xamal leen ko soññi leen ci ñu xam ne lu mënta ñàkk la kii ab jullit waaye ñu xam ne laat dafa bokk ci ndigal yi njëkk njëkk wàcc ci lislaam alquran ba muy wàcc aaya yi njëkk wàcc di njëlbeenu sóoratul alaq la ca topp sóoratul muzammil sóoratul mudassir yàlla di joxoon digal yonent bi nga xam ne borom xam sax dañu wax ne keroog bi sóoratul mudassir wàccee la yonent bi door doon rasul la ko jiit yëpp nag yu rek la woon ndax ci la ko yàlla joxee digal jugal woote ji jugal waare xum fa am tër ne ko war a fa kabbir lu ca topp wa siyaabaka fa tahir na nga laabal sa xol waaye na nga laabal say jëre na nga laabal say cër na nga laabal lépp lu war a laabal ñu gën a yittewoo jaamu yàlla boobu ni ko alquran diglee sallallahu alayhi wa sallam diglee waaye ni ko sëriñ bi jàngalee ci dénkaane bi nga xam ne lépp njëriñ la